Eh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV cant ak ngërëm ñeen leen si teewlu bi ngeen di teewlu seen bi si topp bi ngeen ñuy topp ñu daal di dikk si révélation yi nga xam ne nag dinañ leen ko dégtal comme niñ koy faral di defee balaa boobu nag ñu daal di jàllale lenn si ay information ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye moom nag moo daal di yëkkati kàddu yi ni mel di wax que ne nag maa ngi sàkk ñu daal di bàyyi candidat bii di Bassirou Diomaye Faye mom basir Diomaye Faye mi nga xamne moy nek candidat bi president Ousmane Sonko tànnoon ngir mu demal ko ci les élection ñu wara amal le 25 février té nak yoyé élection ki di président Macky Sall dal di koy dàq li tax mu dàq ko nak nek mbirum ki di Karim Wade mbirum double nationalité yi nga xam nak ñu ko doon wax ci mom mom Ali Ngouña nak mom moy mooy ki di Bassirou Diomaye Faye eh, dañ ko wara génné dal mu dal di génn ci kasso bi nga xam fa la nek mu wan sénégal yi programme am kon daal dafa mel ni daal eh, yile élection daal ba léegi daal ñoom ñi nag surtout candidat yi jàpp nañ ne yile élection dafa war a am dàq gi nga xam ne président Macky Sall dàq na ko ko daal nekkul yoon ba tax moom Aly Ngouille Ndiaye muy sàkku si Bassirou Diomaye Faye ñu daal di koy génn si kaso bi nga bi mu nekk daal di koy libéré ñu bàyyi nag ñu te leen vidéo bi nga xam ne nag comme ni ñu koy faral di defee rek ay révélation yu amaamam solo ay jàngat tamit yu amaamam solo biir yi nga xam ne nag daal dinay am ba tax ñu daal di dàq yi la élection les faits ci la ñuy yem justice dafa am lu ñu ko andil ci loolu la trancé Karim Wade diggante bi kenn wérantewul ne site officiel bu France génn na ne Karim Wade doonagul pré doonatul français loolu du débat du wérante mais fañ ko condamné mooy ba muy def déclaration bi booba mi ci processus génni ci français donne sénégalais uniquement yor nationalité mais li moy les faits kon les faits mais ndax yoon dafa trancher wi ou non du les faits wax les faits processus bi bam def processus de mais ya xeyti nak une c'est simple le processus am jeexagul def processus am kon ci loolu la justice tranché léegi ce wax ji mooy léegi fii fan la fa justice toore se fan la fa juume ndax man damay toog di xaar résultats a conseil concerné non comme que résultats yi na après bon déclarer na am am ko loi du loi dañuy koy def fan la ni mais am na ñaari nationalité parce que ma nga ca yoonoo pour jeex kon ci loolu lañ tracé kon léegi fan la fa justice juumee euh, Fall fii ñu fi affaire peur affronté xam nañ leen fii gars yi dañoo dem taxaw ca lamb ga PDS ak Benno Bokk Yaakaar def le plus grand commune que l'histoire retiendra mooy un premier coup d'état de l'histoire retiendra ngeen naan gaa yi dañoo ragal Karim Wade fan lañu ragal gars yi dem lamb ja taxaw nga naan Karim Wade fan lañ koy ragale yéen ñi def commune. le premier coup d'état bi histoire au Sénégal après ngeen ne ce audio yi nga def yépp nga né Sénégalais yi dañ leen di manipuler mais qu'on soit sérieux Sénégalais yooyu ay xel lañ comme ni ñi def na ci ñom ñu tek ci seen bët di xel yow nga bëgg taxaw né ay dof lañ parce que ay nit ñoo di manipuler parce que nit ñooñu dañ leen di wax dëgg légui ndax ko defam loolu ñun ñëpp moom la poser question kenn mënu ko mais lii dëgg te moy dañuy tromper depuis 1960 ba légui c'est ça la réalité motax sun suñ réew yi comme ni di ndóol léegi nag man duma taxaw dila la nan le diw mom bu ñëwee sele Messi non non parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais li am mbaw am ñu war ko reconnaître moy sénégalais yoy ay borom xel lañ bo bëggee ñu déglu la dañ leen di wax dëgg bu leen promettre la lune c'est vrai mais wax leen dëgg 1960 ba légui dañuy tromper lii moo fi am moo tax organiser ay élection ay deal lii moo fi am 1960 ba léegi ay calcul politique ak i deal. Euh, débat bu sérieux ñi jiite réew mi ñoo koy war a tàmbali yéen PDS bu fekkoon ne dëgg dalee na ñor léegi ñu ne dañuy dàq élection ñu ne léegi c'est vrai problème am na yéen lan moo leen tere woon na proposer maanaam un dialogue sérieux mais lan ngeen def la lendemain yóbbu assemblée nationale créer benn coup d'état léegi après Fall avec tout ça ngeen bëgg a jël nit ñi ne noonoo ñoom ñoo xamul dara ñoo ñoom ñooy ay dof quoi lan moo leen traité ne oote woon a débat sérieux ne PDS day taxaw ci un débat sérieux parce que réew mi Macky Sall yàqu na ko parce que moo andi crise institutionnelle ngeen taxaw comme un opposant daal di oote un débat sérieux Sénégal yëpp toog benn table ñu xool réew mi nan lañ koy saafara ngeen dem nekk seen dil ba pare di accuser nit ñi dëmm quoi mais qu'on soit ba pare ngeen ne ay intellectuel ngeen. ngeen créer seen coup d'état nekk si ay deal ba pare ngeen di accuser nit ñi léegi nag nit ñi ñoom ñoo séréewul ñoom ñoo xamul dara quoi mais Fall dafa yomb xam leen ni nit ñi dañoo yeewu léegi yii ngeen di wax yëpp c'est le passé nit ñi dañoo yeewu. waa léegi euh, Fall léegi nañ bàyyi ka kaala Karim Wade léegi Karim Wade eh, euh, dañ ko éliminer injustement léegi ñu ko éliminer ñu ñu jiiñ leen muy crise institutionnelle parce que institution bi gën a mag ci réew mi la yéen ngeen di ay député.

lan mo len terewoon a def jikkoy euh, jikkoy opposant taxaw ñu woote benn consensus wote ben waxtaan Macky Sall ñu ne ko le deux ngay génn léegi fi le deux préparer benn waxtaan bo xamné ñu xol les meilleurs intellectuels politiciens yi génn ci comme ni mi amé tout le monde dans tous les dëkk Italie gogo nek ñaata gouvernement de transition la ñam en proposition ya en tant que intellectuel xamu leen ko won quoi la seule chose moom mooy dem yokkal koo xam ne moom moo créé kaw yëpp ngeen yokkal ko 10 mois après ngeen ne dana leer fan lay leeree da ngeen a mas a bëgg leer fii dara du fi leer nam daan demee dem ñu këlëm këlëmee ko continuer waat di def leen mêmes deals loolu la Sénégal yi yeewu moo tax classique parti opposant classique parti yooyu ñu gox leen après yéen bu leen neexee ngeen toog ne dañ leen di manipuler mais nit ñi dañoo yeewu ba yàqu monde internet lañ nekk loo bëgg a xam ci àdduna da nga koy xam. waaw euh, euh, Fall doon la ma neex tamit intellectuel nga ñëw ci les faits léegi yow man sama question yi de ko tontu dama ne la ban dëkk ci àdduna nga mas a gis maanaam tey ñu yokkal mandat présidentiel wax ma ci benn dëkk rek ci àdduna bi ngir yàlla loi Sénégal waxuñ waxaale wuñ ko ndax loi Sénégal constitution moom moo koy yokk moom moo koy wàññi président ba mu bëggee wàññi mandaam sax mënu ko wàññi léegi yéen ngeen ne ci justice ngeen nekk c'est fait léegi dafa subir injustice dem tegaat Sénégal yi léegi injustice. léegi noonu la ñuy réglé le problème léegi PDS bu subiree injustice kan la ko fi subir du parti au pouvoir ñoom ñoo fi nekk yéen waa parti au pouvoir ngeen accusé léegi waa parti au pouvoir boobu ka jiitu ca tête ba ngeen jiitalaat ko coup d'état jox ko 10 mois léegi après yéen loolu lépp yow sa audio ñu fi tàmbali yëpp yow coup d'état bi waxoo ci waxoon lan mooy nërmee la réew waxoon lan mooy andi insécurité ci réew mais ñan ngeen di dal ñoo xam ne kenn falu leen ñoo xam ne dañoo yónnee lu mat cinq candidats nekku ci jàll baax na. ñoom liñ bëgg mooy taxaw ci làmb ji léegi ñooñu la ñuy accuser na ñoom ñoo bëgg a yàq mais qu'on soit sérieux quand même wax leen ci ngir yàlla coup d'état bi ngeen taxaw dem def ko léegi loolu yow lu tax waxoo ci tamul leer na la àdduna wërngal këpp doo ko fekk ci mennum réew mu normal lu tax doo wax ci fee boobu ngay topp ay opposants yuñ falul ñoo xam ne juróomi candidat lañ yóbbu dugal ko ku jàll baax na. pour ñoom kenn rek représenté leen Fall nag après ngeen bëgg a jiiñ nit ñi ne amul xel quoi ah, mais du yomb parce que sujet bi ma laaj doo ko man a tontu Fall sujet bi ma la laaj doo ko mën a tontu léegi man damay génn cadre Karim Wade dafa am fu ma lay laaj coup d'état constitutionnel bi ngeen def ànd ceeg waa Benno Bokk Yaakaar man loolu laa laaj fan ngeen ko teg waaw nga andi ci benn exemple ci àdduna bi parce que intellectuel nga nekk nekk àdduna bi crise bu amee réew xam nga niñ koy réglé jàpp naa ne xam nga nen la ñuy réglé crise mais ngeen def coup d'état li gën a flagrant yow nga def lu ma dix audio nominé woo ci benn yoon coup d'état constitutionnel bi ñu def laaloo ko ci benn yoon mais lan ngay laal sa lëpp li ngay dal mooy ay yenn nit yoo xam ne ay nit ñu ngi leen di déglu jox leen xel nga ne ñi leen di déglu ay con lañ parce que dañ leen di manipuler mais su audio yëpp loolu nga fi def parce que numéro un il faut respecter les gens nit ñi dañoo am ab yi ak ay xalaat fii ku wax waxi dëgg déglu la. mais malheureusement les ngeen di top ci Sénégalais yi di leen accuser nan la parce que ko amul xel manipuler dañ di manipuler Sénégalais yoy borom xel lañ nek fu ne ci aduna bi ci diaspora bi di def ak di def tous les jours lan lañuy rêver réew rek réew mu jaral leen ngir bëgg mais ñooñu ñëpp da ngeen di taxaw ne dañ leen di manipuler parce que amuñ xel léegi bëgg ñoo gëmloo ñoo xam ne 1960 ba léegi ñoo fi nekk leen mêmes têtes di ñu kombaloo nga ne ñun amuñ xel mais c'est grave. Euh, Fall li nga laaj am na solo mais attewuñ charia ci réew mi waaw bu doon l'islam na intention be la ñuy fay mais attewuñ charia euh, fii réew mi li mu fi atte point bu ndaw lañ dugal Thierno Alassane Sall musu leen a wax ne Karim Wade du sénégalais musu leen a wax ne demande wu déserté euh, national de français musu ta wax loolu li mu wax daf ne moment ba nga xam ne moom lay def déclaration d'honneur bi booba mu ngi woon ak beneen passeport à court boo xam ne mu ngi ko doon dindi mais yeggagul ci cappaanguy ga justice daal di sukkandiku ci loolu ne wax jooju kat wax dëgg yàlla dëgg la lii jarul doon Einstein pour man koo comprendre. lim point waxuñ leen ne du du français français la moment biñ ne mi woon en cours jeexagul lii la justice sukkandiku waaw kon l'islam àttewul ci réew mi lam sukkandiku mooy moment boobu noonu tey dañoo jàpp ne dafa wax lu du dëgg parce que boobu am na beneen nationalité donte ko moom de génn na ca waaye jeexagul mi ngi ci processus bi kon kooku mënuñ koo àtte ci intention.